sûr c'est la doctrine du fond fond bi loolu la leen wax da ngeen di dindi subvention produits pétroliers yi yëpp dindi subvention euh, ba léegi nag kan la xam et puis cette année là ils ont ils ont économisé cent milliards léegi waaj pour wàññi déficit bi fond bi nee na leen déficit cinq pour cent bi cinq virgule six pour cent bi mënatul nekk de da ngeen koy wàññi par force ah waaw léegi fond fond lebal na leen xaalis maintenant léegi ñoom kan lay kan la ñuy bàyyi loolu est-ce que c'est avant l'élection ou après l'élection c'est-à-dire kañ la ñuy bàyyi lan. quand quand est-ce qu'ils vont appliquer du fond. mais si ça a commencé. ouais mais là donc donc a commencé <laughs> avec euh, les produits. avec ouais, l'électricité ouais, mais attends. et là ils vont mettre en ils indemniser les, euh, les les transporteurs ils vont. ils ont un peu augmenté l'assiette des bourses euh, de sécurité familiale il y a une feuille de route ah. léegi. Euh, sauf que nous applique les prix réels. pour l'énergie. oui ah, ah, je suis pas encore sur d'ailleurs qu'ils euh, sont à ce niveau-là mais euh, di wax rek ne beneen beneen problème boo xam ne euh, ànduma ceeg Macky ak Amadou Ba. Hmm. finance publique. c'est-à-dire. xam nga Amadou Ba moo ko fi andi saa yokkee budget bi yo en dépense mu ne j'ai battu record xam nga loolu lay loolu lay tiitaroo 3000 4000 5 6000 et cetera ma ne ko mais yow. depuis quand ça c'est un indicateur macroéconomique foo ko jàngee xanaa à l'université de la paire enfin, on n'apprend rien là-bas à l'université non xam nga dans nos pays où il n'y a pas de financement monétaire mënoo bàq moom mënu yeewu suba rek lebi ci banque centrale comme en Gambie ou je sais pas en Guinée ou au, au Ghana même c'est mieux encadré que yooyu fii ministre des finance luy liggéeyam mooy surveiller les arriérés intérieurs léegi sax bañ nañ ko bëggatuñu wax arriérés intérieurs ay obligations impayées la ñuy wax xam nga mooy lan entreprise yi suñu liggéeyee ba pare sur des marchés de l'État avec des contrats et cetera en tout cas les travaux ou les contrats sont exécutés ñu yore leen xaalis war leen fay feeñu leen loolu la ministre des finances war a xool liggéeyam loolu moom mooy après euh, pénaliser la circulation de la monnaie. et l'économie oui circulation monétaire. dette dette bi bu yokkoo. waaw dette intérieure. mooy eh, je on, je préfère parler d'arrière yi parce que dette euh, bon euh, euh, euh, xam nga mën nañ yoreel banques yi. ça suppose qu'ils sont à jour. je laisse ça au banques xam nga par exemple avec ñoom ils doivent de l'argent aux banques. les banques parce que dañuy banque yi dañuy ay bons du trésor wala jënd ay yooyu de l'État xam des fois ils inter donc loolu considère ça comme une dette due à ces banques là mais ñii xam nga la dette due à ces banques d'une manière ou une autre dinañ ko fay mhm. duñ ko mënulee fay banque centrale moo koy de la dette publique tamit le service de la dette euh, waaw bon y a une partie due à l'étranger il y a une partie également qui peut être due euh, qui euh, mais xam arriéré yi kenn du ko fay te kenn mënalu leen dara parce que yow soo la état bi yorelee lan nga mën a def dem jooytu pour ñu fay la. boo jooytoo sax duñ la donc ñooñu ñooñu les parents pauvres du système la en fait qui tiennent le tissu social de ce pays ministre des finances liggéeyam loolu la war a doon. tous les mais mais ministre des finances liggéeyam mais nee naa loolu la war naa ko quand si yow laa juddu maa leen ko gën a xam moi je connais tous les ministres des finances du Sénégal Pétain Vincent nuyu naa ko. Euh, mais ministre des finances dafa war a xëy di surveiller. finance on parle économie. attention des finances les finances publiques. dafa war a xëy di di surveiller des arriérés absolument tous les soirs je suis président de la République. il fait le point oui c'est-à-dire c'est son job principal. parce que le reste là les services savent faire ça. mobilisation des recettes ak yooyu yëpp. ça c'est huilé à peu près encore qu'il faut faire de grosses réformes. Euh, ñoom ñooy fay les recettes fiscales directes. ah yooyu mais euh, euh, euh, dama bëgg a wax foofu ne service mën nañ liggéey loolu le ministre qui doit donner des orientations qui doit faire des arbitrages tous les soirs ou à la fin le vendredi on doit lui faire le point yan secteur ñoo amul yan secteur ñoo concerné et cetera et cetera loolu laa laaj sama ministre des finances maintenant le ministre de l'économie c'est autre chose économie du takk sa cravate dem signer di convention avec le fonds ou la banque ou la BID ou je ne sais pas quoi ça c'est le ministre de la coopération internationale benn direction mën na ko def directeur de la coopération waaw ñoom ñoo koy def dans notre système on aura un ministre de l'économie qui va s'occuper de l'économie ñuy wax économie de l'organisation de l'économie waaw comment notre économie est compliquée parce que ñaari économie la ñu am lu ñuy wooye les secteurs les économies l'économie elle est due à ñaar la yoo xam nga ñu ngi koy dund parce que avant dañu jàppoon ne secteur informel yi day gaaw a disparaître mais en Afrique ça persiste donc dañu war a am faire faire de l'économie en, en Afrique c'est comprendre ça comprendre comment ce système la mis en place ici en Afrique on peut faire que ce système produise plus et mieux en moins de temps c'est ça le job du ministre de l'économie du Sénégal mais ñoom soo leen laajee ñu ah non non ñu ne contribue pas à la fiscalité ñoom ñëpp su ma leen laajee loolu lañ may wax. maamoon def ba ci amoon informel du contribuer. loolu rek nan lay wax naka lay fonctionner yan mooy dynamique yi yan mooy rationnel yeeg tous nada rien du ça les intéresse pas.